démb kàddu yi ñu doon sànni mi ngi jëmoon ci wa iyyaka nasta'in tey nag nu seqiwaat beneen jéegu jëm ci ihdina siraat al mustaqim ihdina siraat al mustaqim mukallaf mi mooy wax jàkkaarloog boroomam ne ko ihdina yàlla na nga nu gindi siraat al mustaqim yàlla na nga nu jubal نجار تيون وجب مخيون وجب مامو يعني ركلا صراط المستقيم مويون ويسون برام تبارك وتعالى خل في القرآن الكريم أبيون أن تملير لكم لولو مي صراط المستقيم كوتي جار رك آه، جبنا جندي نك منام لي الهدايه جندي دا فا ام ياري معنا menn maanaam yi moom la ñu tuddee hidayatu albayaan wala hidayatu addalaala muy gindi goo xam ne daal danga nga gis ku bëgg a dem ci yoon wa nga ne ko jaaral fële yoon waa ngi boo jaaree fii jaar fi jaar fii danga nga àgg loolu mooy ittey yonent yi ak woroom waroom xam-xam yi leen wuutu nga xam ne ñooy warasatul anbiya moo tax borom bi tabaraka wa taala waxal ko yonentam ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow de da nga gindee jëmale ci siratul mustaqim noonu it la ko mboolem wootekat yi ak leeralkat yi di defee amma weneen xeetu gindi wi nag loolu mooy li ñuy tuddee hidayatu tawfiq mooy xol ba wëlbati ko ba mu dëppoo ak bëgg lu baax bañ lu bon dëppoo ak jaar ci siratul mustaqim loolu nag ci loxo yàlla rek la nekk yonent bi sax nekkul ci loxoom ndax borom bi nee na ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha borom bi tabaraka wa taala ku ko soob moo lay gindi waaye du caagin yow koo bëgg a gindi rek da nga koy gindi kon ci loxo yàlla la nekk borom bi nee na qul lillahi almashriqu walmaghribu yahdi man yashaau ila siratin mustaqim yàlla mi borom penkoog sow ku ko soob moo lay génn nga jaar ci siraatul mustaqim moo tax alladi xalaqani fa huwa yahdin këla bind rek moo la mën a defal hidayatul tawfiq mooy gindi la gindi goo xam ne da ngay jaar ci siraatul mustaqim gindi goo gi nag ci loxo sunu borom tabaraka wa taala la nekk da koy joxe it nag lay tax mu di ko joxe it daam ay sabab bokk na ci sabab yooyu ba ci jëkk sax mooy al iman gëm yàlla متخبرون بدفنه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما نيغا خمني قمنا يالا جابو تلمو لين جوخ نيوانيا نيدانا لين دوغل تير ما عندهم وايدانا لين جندي نجاتي صراطا مستقيما بوك نتي سبب يوي تخ نيتكي بروم بي مايكو توفيقي جار في صراط المستقيم مودي توب لي يالا بغ توب غيرمول يالا سو غيرم نيت نياك سو غيرم البوب ييب سوني فيو غيرمول يالا nga tan yow la yalla gërem lol dana tax mu doli la ak gindiko motax mun yahdi bihi allah man ittaba ridwanahu subul ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نانا دي كي الذي جندي كتيري بي ولا تنجب دي موي كيغا خامني دافا توب كون غرمول يالا لا يالا غرم لو دافا توب لا يالا غرم لو موي يون يا نانا ньоญ يالا دانا لين генني سي اك لندم دوغال لين سي اك لير با نوبي لين يجارتي جار سي صراط المستقيم نتي سبب يوية الإنابة إليه الإنابة إليه موي فو تولو فنك دي يجن آجا وانغ دلو چي سبرم تبارك وتعالى چي دي توب دي دلو غناو چي لفلو باخل دي غنا آوانسي چي لفلو خاني لو باخلا موتخ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب borom bi tabaraka wa mooy gindi ku ko soob waaye itam mooy mooy réeral ku ko soob waaye mooy gindi képp koo xam ne nangu naa tuub di dellu ci moom ñeenteel ba moo di ñaan ñaan borom bi tabaraka wa gindi la ci sabab yi la bokk loolu moo tax fii nu toll ci suratul fatiha moo di ihdina siraat al mustaqim jullit bi war na yëkkati ay loxoom di ñaan boromam di ko wax nag maa ngi lay ñaan nga gindi ma nga jaar ci siraatul mustaqim noonu mu amee nag ay sabab yoo xam ne ku ci jaaree boroom bi dalay may ak gindi wëlbati sa xol defal la tawfiq nga jaar ci siraatul mustaqim noonu la amee ay sabab yoo xam ne itam day xañ nit ki borom bi tabaraka wa gindi ko yooyee bokk na ca suluku sabilil ghadab rabbaani jaar ci yoon woo xam ne day indi ميرم سونو بروم تبارك وتعالى وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم دفن غير المغضوب عليهم نيغا خامني نيوني بروم بي وتعالى داف لين ميري ناخ دانيو خام دغ با نوبي تيكو فلي لولي داي تاخ وتعالى خاج لا اك غينديكو باي رير دي دم رك المستقيم غا نيك الله من رك وقت فك فغا fuy merloo sunu borom tabaraka wa taala kon almaxdubi alayhim ñi ko jagoo mooy ñi xam ba noppi lànk bañ a topp loola nag nam amee ca e, xeet yi jiitu woon ahlul kitaab mu yahud ya noonu la amee itam ci biir julli yi ay nit ñoo xam ne dëgg leer na ci seen bopp waaye dañoo wëlbati ko teg ko fële bokk na ci suluku tariq dalaal jaar ci yoon woo xam ne mooy yoonu dëng mooy yoonu réer ku ko tànnal sa bopp jaar ca borom bi tabaraka wa taala mën na laa xaj ak gindeem moo tax bi ne xayril maxdubi alayhim daf ne wala dallin ña nga xam ne ñooy ñu réer ña ñooñu it bokk ci bokk na ci sabab yi nga xam ne day xañ ak gindiku mooy al fisq fisq nag mooy firi ak jàng wala ak kàccoor mooy li la yàlla sant nga xotti ndigal yooyee bu dee ay lu ñu war a jëf nga lànk bañ ko jëf wala nga jëfe ko noo la neex bu dee lu ñu tere nga xotti ko defe ko nam la neexe moo tax borom bi ne yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illa alfasiqin nee na day ay misaalam moom sun borom tabaraka wa taala dana ci gindi lu bare bari waaye dana ci réeral it lu bari waaye rek ñam cay gin ñam cay réeral nag moy fasé code yi ñu xamné ne yu kàccoor lay dañoo jël dëgg tek ko fële top set seen bànneexu bakkan borom bi waxaat na ne wallahu la yahdi alqawm alfasiqin lol ñëw na ci alquran ay yoon yoon yoon wallahu yàlla la yahdi du gindi gindi xol du may tawfiq hidaya alqawm alfasiqin nit ñi nga xamné ne dañoo génn ak top topp seen bànneex bok na ci yi nga xamné ne da fay dox diggante nit ki ak الهداية والعياذ بالله مودي الظلم توين توين نك توين سبب بانج في موين ديغالي سبرو مانج في واي توين بيندي في تمانج في توين لين تي سيني در ولا نغا توين لين تي سيني علل ولا نغا توين لين تي سالوخو بروم بي نينا والله لا يهدي القوم الظالمين لولو نيو ني القران اي يون يون يون والله يلا لا يهدي دو جندي جندي توفيق القوم الظالمين نيت ني خامني اي توج كات لا جروميلو لاغا خامني داي خاج نيت كي توفيقي هدايه الكفر ودي ген دين الاسلام ولا ودي نيك ليغا خاني موم لا لا سو بروم تبارك وتعالى ديفال ولا كونتر اب توحيد بيغا سي نيوان سو بروم غا ген كو ديم دي بوكال بروم بنينا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين برم تبارك وتعالى دو جندي نيغا خامل دانيو ريل كون دال سون دل سيدي خول الهداية يالنا نكو سونو برم تبارك وتعالى ماي موي جندي كو جيم صراط المستقيم ام غا سولو دمنا دايو ناخ موي ان جوب لودو لولا اك ريل لا موتاخ سونو برم تبارك وتعالى تي يرماندم مو دوغالال لا سورة الفاتحة ميغا خاني دان كوي جانغ تي راكا بو mu dugal nu ci wax yi nga xam ne dëgg naan ihdina siraat almustaqim yal na nga nu gind nu jaar ci yoonu jub wa siraat alladina anamta alayhim yoonu ñi nga xam ne da nga leen a xéewalal غير المغضوب waaye nga musal na ca yoonu ña nga xam ne da nga leen a mere ngir xam dëgg guñ xam dëgg ba noppi teg ko fële wala daalin nga musal na ci yoonu ñi nga xam ne dañoo réer ndax dañoo jéemut a gëstu dëgg sax bari ko xam kon jotaayu tey baa ngoog di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defoon ñu tawfiq te defoon leen ko xam naa noo ngi jégglu ci e, yenn yi ngeen di dégg e, fi nu nekk moo ko laaj ndax amul feneen fu nu mën a enregistré e, kàddu yi danoo am rek benn posé gaaw di ko fi jaarale di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defoon ñu tawfiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته